Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi sante yalla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi amaat mbekté ak contenté ci ñëwaat ak yeen ci tolu alquranul karim Tiri yalla bu tedd bu sel bi téere bi nga xamanteni ni yalla euh comme nima ko waxé won néna gaay yi koy jang diko dund diko doxé diko waxé bo len ci suuf lañ len wa gaay affaire bi lu ci nekk dañaan la xéewal moo ci nekk xéewal yi neen moo nekk ci alquran wa qiila lilladina taqaw maada anzala rabbukum qaalu xayra njëkk naa jiital sax ci kaw avant ngi egsi si aaya boobu ci sóor saar yu ñu nekk muy sóoratu naxli nee na ah, wa ida qila lahum maada anzala rabbukum qaalu asatirul awalin gaa yi nga xamante nag ñoom dunduñu alxuraan doxuñu ci waxuñu ci booleen leen waxee alxuraan dañ lay dañ lay sànni loxo wan la ginnaaw daal di dem yàlla nee na ñooñu dunduñu ñooñu dunduñu mais gaa yi dund alxuraan ñooñu ñooñu dund kon yàlla nañu yàlla boole ci alquranul karim def ñu ñu bokk ci ñooñu alquranul karim yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def mbokk yi ñu ngi yéen ci suratu naxli saar wi yàlla tudde yamb te bu ñu waxee yamb wax lem kon ñun jullit ñi bu ñu toog ba tubaab yi rawuñu ci xam-xam bu jëm ci wàllu lem déedéet ñun jullit ñi nañ am fulla yi bari lem lool ba di ko jox mondu bi yépp ba pare yar suñu njaboot suñuy doom jàngal leen ba ñu génne ci xam-xam lu jëñ réew mi waaye tànk ñu ngi toog ñun jullit ñi tegale suñuy tànk ah banque suñuy loxo tubaab yi di ñu indil buñ ko bañkat ñoo ñuy nodd te yàlla pare na ak ñun saar wi yàlla yamba la ko tudde yàlla daal di ñëwaat ak ñun ci yeneen xéewal yoo xamante ne nii wax na ko ci saar wi yàlla subhaanahu wa nee na وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون الله أكبر mbokki يلا نينا بطي جنا tey خمين bi nga وقتان ولا ويسو duggoon nag ñun ci mbay mi wax ñu yi mu ñu may may yépp yàlla tey jii nag ñëw na ak ñun faneen ci jaww ji yàlla nee na moo ñu tàggatal jant bi wa saxara lakumul layla moo njëkk guddi yàlla nee na moo ñu tàggatal guddi wan nahaara ak bëccëg wa shamsa ak jant bi wal xamar ak weer wi mbokk yi baatu wa saxara lakum mooy ku la tàggatal mbir tey jii buñ ne fulaanun yu saxiru fulaanan isa kallafahu amalan bi xayri ajr tey jii bu fekkoon da benn waay di ko liggéeyloo muy liggéey force te doo ko fay dara te li nga bëgg mu la koy liggéeyal ni nga ko bëggee la koy defee ci lañ naan fulaan yu saxiru fulaanan aw fulaan saxara fulaanan baat boobu la yàlla utiliser yàlla nee maa leen may guddi guddi maa ko bind yàlla nee na moom moo bind guddi dogalal ñu ko pour ñun ci naka ñu ciy noppalu guddi heure noppalu la heure dallu la donte ko ndeysaan réew mi metti na metti goo xamante ne nii am na ñoo xamante ne nii guddi ak bëccëg dañuy liggéey yal leen yàlla yërëm yàlla ubbi seen bunti wërsëg waaye mbokk yi yàlla leen guddi pour noppalu la waaw wan nahaar Yalla neena na len may bëccëg pour ngeen ci sàkku wërsëg bo danti danti bu guddi nga ñew daal di tëdd daal di noppalu yalla neena na la na ci guddi lo xamanteni ni ken xamul lan la waye nalaw yu guddi yemul ak nalaw yu bëccëg becc gi lo danti danti bo ñewé bu fekkee tel nga egsi sangu ba set ma sha allah a ah guddi neex ngay am moy yeewoo fajar yow sa lépp macha allah da ngay amaat beneen énergie boo xamante ne ni yow da ngay jug rek daal di dem euh, doxi doxi yi nga war a dox waaye ndeysaan ah yàlla nee na it kazalika moo ñu may jant wa shamsa jant bi yàlla nee na maa leen ko may ba pare jant bi ci seeni bëgg-bëgg lay dox yéen doomu aadama yi mbokk yi est-ce xam ngeen ni mbay mii jant bi bokk na ci lu mu fi def muy ñor. ceeñeer yooyu ci bàyyi ko dañ ñoral mbay mi watan kazalika bokk na ci jant bi xéewal yu ci yàlla def suñu fóotee weeram wow yooyu ay xéewal la yoo xamante ni yàlla subhanahu wa taala moo ñu ko may bokk na ci ba tey jant bi ah, tàngoor wi ci nekk am na ci noo xamante ni am na nu muy deme dafay daf lay aar saw yaram waaw gisoo ñu bëgg sax boo yeewoo ñu ubbi bunt yi ubbi palanteer yi pour jant bi lu bon bon mu dugg ci kër gi loolu dafa bax yalla subhanahu wa taala neena mom la waye tamit wal qamar yalla neena mo ñu may wër ah gis nga faneen muy wax na li ta'lamu adada sinina wal hisab ndaysan yalla neena mo ñu may wër pour ñu xam ah, at mu jeex ak wër wu jeex di ci mëna calculer di xam naka lañu dundé ndaysan yalla neena yoy na mo ñu ko tagatal benn bu ci nekk di daw te benn bu ci nekk du ah ah لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يلا سبحانه وتعالى نينا من ما لين ماي جنت ماي لين وير ñoom ñaar dañuy daw te kenn du ci dab moroomam te li ci gën a yéeme guddeeg bëccëg duñu mës a mbëkkante guddi fu mu egsee bëccëg dem bëccëg fu mu waree jotee guddi dem waaw kenn du ci raw sa moroom yàlla nee na yooyu ay xéewal la waaye nag nee na inna fi dalika la ayatin li qawmin yaqiluun ginnaaw bi mu waxee wan nujuumu musaxaraatun bi amri yàlla tamit nee na maa leen may ay biddiw mbokk yi lii wa taxoon ma waxu leen ci commencement ba ni leen il faut ñu déglu alxuraan yow mi bëgg am ngëm yàlla gu dëggu déglul alxuraanul karim xoolal xéewal yi fi yàlla subhaanahu wa wax yàlla leen moo ñu may biddiw mbokk yi biddiw yi ngeen di gis kaw asamaan ay xéewal la de bala nga koo xam nag nga nekk ab mool gis nga mool yi bu ñu demee biir géej parensaay mën nañoo réer du ñu xamante tefes gi fan la féete mën nañoo sukkandiku ci biddiw yi ba xam ne kat tefes gi côté bii la féete ñu daal koy jël ñuy jaar ci désert bi àll bi mën ngaa dem ba ci biir désert bi nga réer doo dootoo xamati fan la yoon wi nekk su ko defee bu guddee bu biddiw yi génnee mën nga cee sukkandiku xam ne yoon wi fii la ñoom ñi nekk ci biir terrain bi xam nañ li may wax xam nañ ni loolu am na yow mi demul géej nag nekkoo ci désert man nga koo baj a xam moo tax yàlla daan ni wa alaamaat wa bin najmi hum yahtaduun te dinañ ci ñëw insha allah tabaraka wa taala mbokk yi kon yàlla subhanahu wa taala nee na moo ñu may guddi moo ñu may bëccëg moo ñu may jant moo ñu may weer moo ñu may ay biddiw waaye yàlla nee na na fi dalika la ayatin li qawmi yaqiluun yàlla nee na gaa yi am xel bi xalaat xam nañ ni fii ay kéemaanan ci ay mbir yu leen di wan yàlla moom kese moo fi nekk kaneen nekku fi kon mbokk yi li ma leen doon wax guddeeg bëccëg suba ngoon de ñëwaat xeetu yonent bi du xeetu kéemaan xeetu xalaat la yàlla daan yónni ay yonent di leen jox ay kéemaan pour gaa yi gëm bu ñu gëmul mu mbugal leen xeetu yonent bi du loolu xeetu yonent bi xeetu xalaat la yàlla dafa bëgg xeetu muhammad ñuy xalaat dafa bëgg ñu xalaat ba xam ni lii mooy dëgg ñu gëm ko parce que ki nga gëm ci côté kéemaan boo moytuwul rek mën nga koo jaamu moom mbaa nga sonal ko ci yeneen kéemaan waaye ki nga xamante ni dafa convaincre sa xel kooku di nga xam ne kii daf laa woon dëgg yéen ñaar da ngeen di ànd jaamu yàlla subhaanahu wa taala moo tax yonent bi ay kéemaanam bariwul moo tax yonent bi deful kéemaan gu rëy kéemaan goo xamante ne daf koo def pour gaa yi gëm bu ñu gëmul ñu mbugal leen déedéet ba ci weer wi ñuy wax ni xar na ko waa Màkka ñoo ko sàkku ci moom gis nga ba mu ko defee waa Màkka gëmuñu taxul yàlla mbugalu leen parce que yonent bi ñëwul pour loolu loolu man ci bëgg a jàllalee ni gaa yi def ay xar baax nan dañuy def ay karaamaak dañuy def ay kéemaan pour nit ñi topp leen ngir yàlla ki ngeen di topp toppee leen ko xel bañ koo toppee ay affaire daf leen a wan dara dafa am kéemaan bu mu la wan ba tax nga gëm ko déedéet topp ko ak sa xel gis nga ki nga topp ak xel wallahi asim doo ko mos a jaamu di nga xam ni kii nit la waaye moom moo la teg ci aw yoon. su ko defee da ngay xam ne ab jaam la comme yow ni nga nekkee ab jaam ngeen ànd yéen ñaar daal di jaamu yàlla subhaanahu wa taala moo tax yàlla xoolal waxtaan wee weesu lu ma ko jeexale woon ah yàlla mu ko jeexaloon ci ay aay yoo nii daf koo def li qawmin yatafakkaruun xoolal aay bii tey li qawmin yanqiluun gaa yi utiliser seen xel moo tax boo utiliser wul sa xel rek boo moytul yàgg mala yi yéen a yem ulaayika kal anaami bal hum adal mbokk yi yàlla daal di wax ni wa ma dara lakum fi l ardi muxtalifan alwaanu inna fi dalika la aayatan li qawmi yadakkaruun allahu akbar aay boobu fa la ñuy jeexale yàlla nee na ba tey man yàlla maa leen may maa leen may ay mbir yu ma sàkk ci kaw suuf وما ذرا لكم في الارض يمنن سكال تي كاو سوف الذرء موي مير يو خامتاني لا نيو جودو تي نياري يون امب اندي اك بوف عن طريق الحمل ان والتفريخ يلا نينا يوي ييب ما لين كو ماي ما ماي اكزامبل ما لين ماي اي خرك بيك نك ني te bu seen biir ñuy ëmb am doom wala exemple ginaar ginaar séq gi ñëw tëbu ko mu daldi di nen daal toog daal koy bóof ba ba tojal jot mu daal di tojal yàlla subhaanahu wa taala nee na yooyu yépp man la ginaar yi maa leen ko may pitax yi maa leen ko may ba ci seen soxna yi ànd gi ngeen di ànd ak ñoom ndox génn ci seen ndigg ñoom ku jigéen keet ndox mu bàyyi ko ci dënnam mu wàcc daa di am ci benn boîte bu mu nekk yàlla nee na boîte boobu maa ko fa def man yàlla fii qaraarin makiin waaw yàlla nee na maa ko def ci boîte bu dëgër boo xamante ni ndaw si bu doon daw féeg yu ni mel yépp du tax mu tuuru yàlla nee na moom moo ko fa def yàlla subhanahu wa taala nee na bu ndaw si amee doom moom la doom ju góor doom ju jigéen ay seex moo xam seex yu góor la wala seex yu jigéen yàlla nee na lu judd rek moom la wa ma zara lakum fil ardi waaye nag dafa wax ni muxtalifan alwaanu moo xam ñi ñuul yàlla la ñi xees yàlla la ñi xonq yàlla la boo ko jëlee yóbbu ko ci jur gi ak lu jur gi mën a mel yàlla la ba ci euh, yarkat bi bu boolee xar yu bokkul ay ras ba génn ci raas bu bees yàlla nee na kooku du moom de du kàttanam de man yàlla subhaanahu wa taala la waaye tamit kazalika buñ ko jëlee ci mbay mi xoolal yàlla mango yi mu ñoral façon mango bu nekk ngay gis mango bu jaune mango bu verte mango bu xonq yépp yàlla nee na yemu ca de yàlla nee na ba ci xet gi ci nekk sax man la pareni saa yi ndeysaan njóobeen xam nañ li may wax da ngay romb benn jaaykatu mango oh, allah mango gi di sànni xet goo xamante ne nii yow boo doon dem fenn sax da nga bëgg a taxaw ndeysaan xencu ba doyal yaa ngi dégg doog dem comme gars yi bu ñu rombee dibi noonu muy sànnee pareni saa yi macha allah mbay mi bu ñoret ba gars yi jël ko ba yóbbu ko fi ñu koy jaayee noonu lay sànnee banaana ji di xeeñ ci mbedd mi mango ji di xeeñ pom ya fële yooyu yëpp boo rombee rek xet googu yàlla subhanahu wa taala nee na moom la yooyu yëpp yàlla bàyyiwul dara muxtalifan alwaanu inna fi dalika la ayatan li qawmi yadhakkaruun yàlla nee na eh yooyu kéemaan nang ci de ñaari tool yu dend ay tool ñoo dend nii ndox mi wàcce kaw asamaan benn ndox la wàcc ci tool bi wàcc ci tool bi tool bi saxal ay màngo tool bi saxal ay goyaab kii saxal ñambi kële saxal pombiteer ñoom ñëpp ku ci nekk bi nga jiwoon mu sax yi ciy saf suukar saf suukar yi ci saf kaani saf kaani yi ci lewet lewet yaa ngi dégg yàlla subhanahu wa taala nee na yooyu yépp maa ngi ko arrosé benn ndox benn ndox kasa laa wàcce mu def loolu kooku mooy yàlla subhanahu wa taala moo tax mu daal di inna fi dalika la ayatan li qawmi yadhakkaruun yàlla leen ay kéemaan ci de ay kéemaan a ngi ci waaye xam nga ñan ñoo ci jariñoo li qawmi yadhakkarun gaa yi toog di xalaataat xalaataat suuf si démb ni mu meloon tey mu ñëw defar ko ji ci mu daal di ñor ba génn noo kii yàlla moom moo fi nekk ginaar gi ma jël ko boole ko ganeen ginaar mu dem ba nen fi ba bóof fi ba tojal fi noo kii yàlla la xar mi mu ëmb indi yàlla la il faut ñuy toog di xalaat ci li yàlla subhanahu wa taala bind loolooy tax ñu xam kan mooy yàlla bu ñu xamee yàlla bëgg ko te bu ko bëggee jaamu ko yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp jéggal suñu bàkkaar lu fi jub ko sant yàlla lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko di jaajëfal la maison du Coran nga xam te moom mooy taxawu liggéey bi wa jazakumullahu xayran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu góorgóorlu leen ci alquran def leen ko lekk def ko naan manga bawoo ca asamaan jibril mu wóor mi andi ko na leen jaral sonn bu wér